asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant yàlla xam ni moom kese rek dong nag moo yow sant julti sang-sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man maa ngi tudd monsieur Omar Kambi le président du parti populaire Tawfekh siège am nekk fii Diamniadio ah, man maa fas yéene waxtaan ak yéen si mbirum actualité au niveau de de Diamniadio tout à fait loolu daan ci sawar bu baax a baax a baax parce ñun comme ça nu ko waxee rek dugg benn bokk yaakaar sa demande pas une autorisation a priori donc génn ko aussi ça demande pas une autorisation mais ñun ñu ci benn bokk yaakaar ci lañ mos a nekk ci lañ des. boo tax élection présidence bi ñëwee ñu def suñu kattan génne ay moyens gi sa photo yi mobilisation yëpp ci la woon xam nga euh, mouvement Populaire Tawfekh réew le président Macky sa dès le premier tour ci loolu yàlla dimbali ñu si ñu liggéey ci liggéey ci liggéey ci liggéey ci ba mu am na yeneen firnde.

à partir de 23h 24h fekk yëpp leer ba si leen ñëpp liggéey benn ñaareel bi élection locale di ñëw nii man Omar Kane ma gañu miir jam ñaajo paa bi ne incha allah te na première question bi am na réglé nañ ko léegi nag deuxième question moo des ba élection yi jeexee duñ toog rek dèjà gis nga feebar bu dugg ci mu duggee ñun partie bi aussi leen a war a taxawee ñun yëg seen benn camion produit yóbbu ko ministère de la santé j'étais reçu par le leen ko Je ko la maison. non ñu di ko jot millions et quelque pour les jeunes yëpp les groupements féminins gox je suis dans les dans dans les trente wala quarante trente euh, euh, quartiers yi nekk Diamniadio am Machallah. ñu defaat beneen bu mel noonu suis mu ci marché Je école bi ma IEF wut ay un million trois cent jënd ko ay masque ay gel jox ko IEF

dimbale ko jigéen ñi mardi passé ma ne kon laas naay pour ñu dimbale ko jigéen ñi pour ñu mun ci liggéey bu baax a baax a baax gouvernement bu ñu jox ko un million ñu ñu ko tout ce qui est caution ak ak intérêt yooyu yëpp ñu ko en charge banque financière lu encore ma programme la dañuy euh, à partir wala avril deux mille vingt et un benn cent millions boo xam ne dañu ko toppatoo xam nga pour jox ko xale yi xale yu góor yi képp ko amoon projet bancable bu baax boo xam ne vraiment xool nañ ni su ko financé mun naa dem ñu jox leen ko. tu ñu wax jigéen kese la ñuy wax góor yi xale yu góor yi soxlañ ku nelaw ñu ne koy liggéey leen soxla suñu joxee ngeen dem liggéey moo gën ngeen dem ci mbëkk bi nangam nangam en plus nit mën na ko toogal toog ci loxo leen moo tax ñu di ut loolu ut 20 millions jox ko jigéen ñi ut benn 100 millions pour bu ko jox euh, góor yi 100 millions yi li 70 millions yi sont destinés aux aux jeunes 30 millions ñu combler ko groupement jigéen ñi des kon la cité et les hommes

ça fait partie des quartiers les plus populaires de Diamniadio tey suñu jafe-jafe koo wax terrain Diamniadio mu mu ne mu taxaw tellement de de de de foncier ay ay lotissement am amul benn autorisation la maire bi def mën a joxe ñaari preuve mooy job si bu muy toj fale 23. 3 ay ay des Sénégal lambda ah xam ne dañuy leb di ay prêt enseignant def prêt des seen dem see dem ñëw ta jënd terrain tabax. bërës rapu dëkk ñu fekk fa toj ko dégg lan parce que il y a ce qu'on appelle déficit de procédure administrative tout simplement mu taxaw ne dafa foogoon ne balaa bala jox keneen ñuy jox ñun état mais pourquoi toppatoo procédure administrative bu am autorisation de lotissement lotissé ba pare door a jox ko ko ko neex. beneen bi aussi avec avec avec euh, waa Grand Moulin dafa Grand Moulin aussi ñëwaat encore avec 7 hectares Diop Cité avec Diop Cité avec 22 hectares Grand Moulin encore ñëwaat encore encore avec avec 7 hectares Grand toj foofu. gis ni encore bi collectif yi ñu ne il y a boo xam ne ko defoon euh, euh, c'est le 64 80 58 gis nga moom moo ko lotissé woon d' abord lotissé ko sans l'avis avis des des des des propriétaires parce que su amé tolam mais soo ñëwee di ko lotissé da nga da nga da wax moom nga suñu benn protocole d'accord pour d'accord, yow yow mi xam ne yow administration nga dem autorisation parce que amul moyen yooyu moom soo amee autorisation ba pare pour lotir ba paré désordre de moom mu jël war a jël yow lu nga ñu yoo xam ne mairie bi ko moom mairie bi jël ko jox ko yenn population yi mais nga lotissé loo xam ne am autorisation léegi ñu lay ñëw ñu jóge fa la indi ay boo ay boo yoo xam ne kenn xam xam ne ay boo pare amul fu mu ko teg ñu koy place ñu a di koy place plus de mille nangam personnes ñooñu tey su ñu ko tojee wax ay mbir 3D di defaat ay euh, lu amoon ci militaire aussi day ñëwaat le président encore va encore revenir à la charge pour pour dimbali population mais loolu Voilà le problème de Diamniadio. Voilà. Vous êtes responsable, euh, président du mouvement d'affaires. T'as une bonne sur la gestion justement du maire de la localité. waaw lu ma la wax rek xam nga su wax damay wax de manière générale ñu ne ay juristes lañ fiscalistes lañ xam nga ay kayit la ñuy waxal yër boo xam ne dañuy dañ ci carrément xam nañ fa war a dem pour jël ay documents xam ne lépp lu ma wax damay génne document bi teg ne lii la mais de manière générale ñëpp ñuy jooy ne gestion bi baaxul mais on est à à tel niveau wala à telle profondeur voilà voilà yu bëri ñu ambulances, déjà ambulance ba ngi pan ambulance jam hôpital bi mu ngi pan boo lekkee defaru ko ba mu paane moom naa ko pendant euh, pour un montant de 1 million soo xoolee ci réseaux sociaux yi boole ñu ñu ko déclaré les gens demandent 350 000. plus de 15 jours léegi moom un mois le maire n'a pas réagi kan réagirul voilà pour loolu ay loolu ay cas la mais comme ni ma ko waxee rek ñun xam ma kilifa sooy wax ma ne dama ne damay wax damay wax loo xam ne damay du sama baaraam mais de manière yoo xam ne ay benn benn ngay gis xam nga ne lii négociation am na loo xam ne mooy mënta ñàkk nan la mu amee hôpital ba am am ambulance. donc soo gisoo ma defaroon ambulance boobu benn femme bu dëkk Dugaar moo doon am doom muñ muñ muñ ko référé loolu moo tax mu gaañu foofu ma ñëw ci levée du corps maa ngi Moussa Diouf ñu wax ma loolu mooy problème bi ci laa woo benn mécanicien ñu leen woo xool ma def bi ñu xool def yëpp ni ma lii 1 million da koy réglé ci laa def chèque jox leen 1 million ñu defar ambulance bi depuis daaw ren mu paanaat mais kenn defaru ko dèjà am na paan rek ci cycle sanitaire moom kese moo fi ay ambulance amul kenn ku la refee yóbbu ay ay clando mais loolu loolu musiba la loolu gestion boobu noo ko mën a tuddee voilà loolu rek doy incha allah rabi kooku wax ma tey de mais 2016 la nga préparé lañ ko pare lu nga wax ni ñun 2016 lañ pare élection ñu lañ xaar 2016 septembre 2016 lañ pare ñu jóg rek ñëw élection de jóg rek ñëw politique de dañuy pare pare door a ñëw ñëw jóge comme ça gars yi def nii ñëw toog rek ñëw commencé tax sa rajo di wër nii non da ngay nax sa bopp ñu ko def en 2014 lu ñu am fii la ma fekk sama saal. ginnaaw suba la élection ñëw na ma noo dañuy bëgg nga jàppale ñu nangam nangam ma a ñan ñu kii la miné de terrain xam nga bajenu gox yi délégué de quartier yi ñoom ñëpp fu nekk mu dem fa def liggéeyam boobu mu ko soo nga def ne élection la ma élection dem ci population bi def lépp noonu mooy élection ma ne ko du ngeen am dara ñu ma non mais yow kam ma ne ko du ba nañ dem ma it 100000 francs jox leen sama participation gasoil élection passe ñu may daw.

élection locale local signé. ñu mën a ànd nañ a dem liggéey ñu a ànd dem ku nekk il a été clair Nous ñun nous sommes dans le bon Bokk et nous restons et nous restons est clair amul dem ci ñëw ñu liggéey démb barke di moom la ñu gën a continuer incha allah gën ko continuer on a sorti 20 millions pour euh, jàppale jigéen ñi pro ñu programmer 100 millions avec benn banque pour jàppale jeunes yi kon loolu yëpp pour jàppale le président Macky pour pour une bonne mi pour xale mën a

Moins, moom lañ ko jox ma dem uti sama moyen si c'est pas pour moi les élections présidentielles c'était pour le président Maxel. Madame, ma dem 10 millions gisoo ko fi toogoon léegi 7 millions la oto mi jar ci la yàqu laa leen Ndongo Sarr ñu dem liggéeyal président tu sama moyen par euh, à force son élection <laughs> non je ne bopp pas ñuy demal incha non non lolou mo lo utuma ko sax toute sincérité utuma ko da ngay to gane ma non mais kambi lu nga liggéey jam ñaajo xoolal dama gis président mané pourquoi pourquoi lay laaj mais yaa ngi nit parce parce que ñi bëri xamuñ politique man duma japp jàpp suma su nit président Macky Sall parce programme am mi liggéey moo ma doy xamné lu muy liggéey day jëriñ Sénégal suma dem suma dem ba gisatuma lolou ma taxaw wa kon ma jappelo ci lol jafé jarma dem di gis di nuyu di président ma yow lay àndal nangam nangam ana ni jaru nga koy wax mom so liggé dana xam liggé nga so liggé dana président mak sa mo gëna xam lu liggé jëm ñaaju parce que rassemblement ci ñu fi tous mu ngi ni le 12 mai 2018 30 millions yu génné génne finance jigéen ñi ak tayeri yi jox xalé machine yi jox tayeri ak jigéen ñi mo lay yoyé président yëg na loolu 20 millions yi président yëg na car mi def ndóoyeen entre yusu ak jissé bi ko tan presque 3 4 kilomètres

kaa day ñëw taxaw suba si bu xale yi dugg ñu yóbbu leen lycée Sébikotane ak yenn école privée foofu ay gànjool suñu après midi bi ñu indiwaat leen mars vingt juste mooy corona bi ba mu fa delluwaatee def lancement bi ñu ne ma actuellement nous avons cent cinquante six ren BFM bi ak bac bi dafa baax ren grâce à sa xanaa loolu que ñu mooy jàppale le président Macky Sall ñun loolu ci loolu lañ nekk ci lañuy ñuy resté en plus politique. c'est la désert la cité les hommes su nekkee da ñëw politique pour nax nit ñi wala pour am poste da ngay nax sa bopp kese parce que yow li nga nar a nekk allah kulli aal ko nekk kon wax dëkk li nga génne sa alal di koy def def ko ci yàlla tax soo yàlla dana la fay lu am ci politique bi nag nga xam ne da ko ci am parce que yàlla moo gën foofu pays doomu aadama soo nekkee ministre même soo nekkee président dem alaxira yàlla mbugal amul sens parce que alaxira ah, àddina xam nga mel puso nga jël puso jam ci géej bi. so gini lo lo tak ci puso bi lo mooy adina lu fa dis mooy alaxira ku la ku la mu ci gën ñoo ñaar yoy geej bi gën geej bi lañ jël voilà. wa mu ngi liggey liggey mu ngi def mu ngi liggey mu ngi def liggey bi amu ci ben euh, li waaw parce que xam nga nit mom àddina mom kenn kenn matalul lepp parce aussi nous sommes dans des dans des dans des pays en développement am nañ ay bëri yu mais il fait beaucoup d'efforts déjà soo xoolee Dakar avec le BRB bi xoolal vraiment Dakar va changer Tu le ça demande beaucoup de moyens ak yeneen yeneen xoolal emploi yi xam nga bien vrai que am na yenn entreprise yu sooxee mu ñu intervenir ak feebar bi xam nga tout ça dafa nekk benn poids bu lourd bu ñëw peser ci kawam mais trop mu mu tenir pour dem ci aussi xam nga ñun su lu nekkee moom président. mais na ko jéem a jàppale rek pour mu réussir parce que réussir ñoom ñu réussir même su ma loolu moom voilà alors à raison mu ànd ak moom kon nañu ko jéem a jàppale ñaanal ko mu réussir ci mission parce que ñun ñëpp ñu am tawféex voilà. non xam ne man ñoom wax lu ñu man loolu laa dañuy wax dañ wax lu ñu war a wax rek xam nga président mo wax ay waxam caution bien fi loi yi fi nous sommes dans un pays dans un pays de droit nous sommes dans une république am na jarul man lo xam moom man su ma ko waxee amul sens parce que wax ko taxu mu am mu ñàkk ko wax taxu mu ñak am xam nga wala te su ma président wara def 3e mandat est ce que war mën tax du 3e mandat non so président wara def 3e mandat ci war bu def 3e mandat est ce que dana tax mu 3e mandat non kon lo du suma wax parce que soo ko wax aussi amul sens moi je dama journalistes si vous posez questions là aux aux policiers sont pas policiers en plus ils répondent ils répondent mal les les les questions vous les question question c'est pour le président il faut aller poser ça au président après il va vous édifier Voilà. man taxaw ah. voilà. maa ngi nuyu ñëpp di vraiment di di euh, tadagal militant parti populaire Tawfekh parce que politique neexul muy waa jam ñaajoo les groupements féminins coordinatrices yi coordinateur Ndoyeen xam am coordinateur yi nekk euh, Dougar ak jam ñaajoo Nduxura partout dans la commune ak ñeneen diaspora bi ay Canada ay France Italie su may collègue am ñoo bokkoon lycée Blaise Diagne ñi université ñu may woo ñoom ne sa ñoo la nekkal foofu xam nga Covid bi sax moo demuñ parce que mon programme on va son def état final xam ñun comme nous sommes des fiscalistes nous sommes au niveau de la fin de l'année année dégg dañu déclaration état 2024 yi xam nga def euh, ak compte provisionnel yi préparer bilan état financier suñu paré état financier rek dañ xaw a féex tuuti su boobaa demoon ba suñ paree état financier rek après ma dem fa def ben tour dem France Canada xam nga am gis gaay gëna gën a ñaax gën taxaw ñom siège parce que mbirum politique mom lool la soo xasee ba am récépissé mu mel na mu mel ni mbër bu am euh, licence kon nak la mo dess beure rek mo dess waaw. kon ñoom ñëpp maa ngi jaajëfal bu baax dina ñu accroché wu politique yi nekkul politique yoon bu sori la bu gudd nekkul ne na ngay dugg tey am tey déedéet kon ñoom ñu accroché wu maa ngi jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal yàlla dafa leen tawfeex ñoo seen njaboot bu baax a baax ay ak yéen tamit yéen journalistes yi maa ngi jaajëfal bu baax parce que yéen depuis 2016 bu ñu pré avant ñu am parti moo pour les tawfeex fële école 1 bu jam ñaañu yéen a fa ñëwoon ba ñu def assemblée générale encore pour am parti bi yéen a fa ñëwoon kon nag yéen aussi man aw ma seen fay may ñaan bu baax lu ngeen bëgg seen xol yàlla xam yàlla na ko yàlla defal ngeen bu am seen rajo seen seen institut bopp yàlla mën na ko yàlla na ko def